jàmm ji a jot xibaar yu sell bu ànd ak njàngalee ak xel mu bii nga xam ne di jàmm ji info. asalaamaaleykum yéen waa Sénégal man Ansoumana Dione may ñëw tey di waxtaan ak yéen ci mbir bu am solo jëm si njiiti réew mi Macky Sall Macky nañu xam ne suñ borom moo ñu ko jox atum 2012 ba tey jii ñu ànd ak moom mu nekk nag natt bu rëy natt bu rëy boo xamante ni kenn ku nekk war na ko bàyyi xel ndaxte président Macky Sall dafa doon jongante ak président Abdoulaye Wade gannaaw ba ay jafe-jafe doxee seen diggante yàlla atte jox Macky nguur gi Macky Sall nag ñëw au lieu que mu delloo njukkal boromam jaamu ko si jafe-jafe askan wi mu ñëw nekk koo xamante ni dafa pare pour nekk musiba ci askan wi li mu jëkk def mooy fexe ba gàllankoor doomu ab lay Wade di Karim Wade fexe ba ñu dugal ko kaso tey mi ngi nii Karim Wade fan la mujjee bi mu ñëwee fas amutoon yéene may kenn jàmm ba mu tàmbalee ci ñi amee feebaru xel man Ansoumana jon ab Abdoulaye Wade tabaxal ma hôpital ci kaw Kaolack ngir ñi taxaw ñu amee feebaru xel nekk ci mbedd mi ci atum 2001 Macky Sall ñëw 2013 tëj boobule kër gannaaw bañ ko fële ci atum 2012 tëj ko ñu nekk ci mbedd mi tey jii kenn ku nekk gis na seeni ay jafe-jafe waaw bobule nit naka lay bàyyee keneen kon tey bu kenn xaar lu yomb ci moom déedéet moom li mu xam mi ngi koy def. ay mbokkam ay jege ñaalam bennoo bokk yaakaar ku ci bokkul bokkuloo sa xam-xam nu mënta bari sa mën-mën nu mënti toll Macky Sall boo àndul ci bennoo bokk yaakaar soxlawula la waaw kii ku ko am si njiitu réew na nga war a xam ne yàlla moo la natt te yàlla nag tu natt ku mu bëggul su bëggee jaamam su bëggee askan daf koy teg natt nattu boobu nag nañ ko nangu nañ ko nangu te bañ ko jooy nañ ko muñ te xam ne buñ ko muñee rek yàlla indil ñu xéewal goo xam ni dafay baawaan ba yoma xiyam Macky Sall amul benn yéene bi mu fi toogee ak tey jii ban jafe-jafe la saafara déedéet amul bi mu fi toogee ba tey lan lañ fi gis ay nit ñuy gën di reyante ay yoo xam te kenn mës ko xalaat accident yi di yokk Euh, dof yi di ci mbedd mi problème mu taalibe yi boobu ba léegi mi ngi naan dina ko fi jëlee ñaata yoon lay wax ne xale yi dina jóge ci mbedd mi waaw ku saafara problème mu mbedd ku mënta fexe ba dëkk bi set moom ci boppam setul Macky Sall du nit ku set ndaxte bu setoon dëkk bi set dëkk ni ni ko jiite mel rek noonu la dëkk bi mel Sénégal dëkk boo dem tey mi ngi salte ba ci bunt pale bi xam ni foofu la dëkk moo gën a salte ci sa si réew mi amul benn réew booy dem ci àdduna nga fekk ci buntu pale ba ab dof bu jigéen dëkk fa ak ay bagaasam ak ay saltem loolu Sénégal rek dong la am te ci nguur Macky Sall dañ ko gën a seetloo kon nañu xam ne courant gi ñuy wax tey jii lu raw courant mi ngi ñëw waaye nag nañ ci ànd ak dal te xam ne yàlla moo ñu ko teg kenn ku nekk yéen waa Sénégal ne kenn ku nekk wax ci gémmiñam yal na yàlla may xolu muñ yal na yàlla diggalu ñu te teggul ñu natt bi ci ni ko soobee indi ñu koo xamante ni moo gën ci réew mi Sénégal métti na ñëpp ngi jooy kan ñan rekk la ñu gis Macky Sall taxaw fer seeni rongañ déedéet amul man boobu ba léegi ren mooy ñaar fukki at may xeex may daw ci mbirum feebaru xel kan moo dégg Macky Sall addu ci mbir mi ñaata nit lañ fi tuutil ñaata kër lañ fi toj ñaata suuf lañ fi nangu ñaata doom aadama lañ fi toroxal ndax mos nañ dégg Macky Sall ci addu déedéet bu addoo rek ay waa la bu recevoir ay nit rek ay waa la waaw kii bu kenn xaar ci moom lu neex na ko waa ji waxoon ca Touba ki amee feebar xel ne makki Sall ku ko wateel doo dugg àjjana mooy lii mooy képp ku ko wateel bul xaar. mu yomb bul xaar mu neex naka la njiitu réew di taxawee naan atum deux mille vingt dana métti xam nga ne kii amul yéene gu rafet naka la njiitu réew taxawee war a defal nit ñi war a dolli nit ñi yaakaar nga di wax ne waaw deux mille vingt dafay yëngatu moo tax kay xale yi dugg ci géej gi ñaata doom ñaata doomu Sénégal ñoo dee ci géej gi fee ci Mauritanie ñaata doomu Sénégal ñoo fa dee ñu waa Kaolack waa foo dugg ci réew mi waaw ñooñu nga defe ne amuñu euh, euh, Macky Sall nekkul ne Macky Sall moo leen rey ah kay ndaxte bu fekkente ne yow fexeloo ba nit ñi am yaakaar nga euh, nga taxaw naa leen atum ren at bi ñu jëm di mille vingt dina nekk at bu métti waaw daana jaadu kay xale yi jël gaal gi dem comme seen yeneen i moromu réew ci Afrique nañu xam ne Macky Sall nattu la bi ñu yàlla teg gannaaw ba mu ñu joxee Senghor jox ñu Abdou Diouf jox ñu Abdoulaye Wade ñun ñu jëw jël Macky Sall foog ne dina nekk si ñun xéewal njëkkate musiba mbaaba kumbal la ci askan wi lii dey du baykat bi moo koy weddi ndaxte su fekkente ne ñeen fukk ak ñaar dërëm moom la ñuy wax ne moom lañuy ñuy jëndee gerte gi ren jii waaw kii ban yéene la am ci askan wi ndax kii pare na pour génnee nit ñi ci ndóol déedéet xoolal projet yi nga xam ni moom la ñuy jox nasaraan yi terre bi ñuy wax ni berte bi ñuy wax yooyu yëpp ay musiba la waaw ndax Sénégal mooy Dakar ndax Sénégal mooy Dakar BRT ay ñaati milliards waaw ana dëkk kaw gi ana région yi lan lañu fa def Macky Sall daal man Ansoumana Dione maa ngi ñaan. yàlla nañ koy yàlla jëlal ci bopp réew mi moom mi nga xam ne moo ñu ko jox nattoo ñu ko nag ñu ànd ko muñ ànd kook ngor ànd kook fulla ak fayda moom yàlla lañuy ñaan ci darajay Seydina Muhammad mu teggal ñu nattu bi nga xam ni moo ñu ko teg ndaxte Macky Sall amul yéene mësul am yéene mënu ko dañ lay dénk réew nga am nga sonn ci sax ni ñi gis ne sax yaa ngi sonn waaye xool leen Macky Sall xool leen ko buy wax xool leen ko buy jëf xool leen ko buy tukki xool ko bu xool leen xool ci léppam rek kan moo gis ci moom benn bi yéen rek génnee askan bi ci jafe-jafe déedéet mësul am ba mu folo ba léegi problème mu ndox problème bu dul jeex nit ñi di reyante agression problème yoo xam ne kenn mësu ko woon dégg fii ci réew mi moom lañ fi dégg kon waa Sénégal nañ ko xamee noonu te xam ne lu mu bëgg moom buñ ko ci fekk déedéet nañ bàyyi lépp ci loxo yàlla. nañu bàyyi mbir mi ci loxo yàlla xam ne Macky Sall yàlla la amal affaire ndaxte yàlla mi ko fal mu waroon ko dellu njukkal yàlla boobu lay wor nañ ko bàyyi yàlla boobu noonu moom xam na naka lay def ak ni ñu mel man Ansoumana Dione li ma gëm mooy yàlla dana jël ci moom matuwaay bi nga xam ne ni moom war comme ni mu ko jëlee woon. ci firawuna comme ni mu ko jëlee woon ci yaay jàmme comme ni mu ko jëlee woon ci yeneen njiitire yoo xam te ni dañuy war seen askan war seen borom bi nga xam te ni moo leen tànn ci seen i biir ak nawle jiital leen ngir ñi dimbale askan bi waaye nag ñu ñëw di toroxal askan bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.